ndax tey xëy mii koo gis ak fi mu fekk nit ñi ci coona nga xam ne def nañ fi ñeenti fan tey dañoo waroon yokk waaye daa mel ne dañoo gën a laxasaaywaat kon li ñuy def gëm nañ ko te Sëriñ Tuubaa noonu lañ ciy jariñoo kon jàngat googu laa ci am mooy xam ne kon li fi nekkoon jógu fi ña fi nekkoon daf nañ jógu fi li mooy taalibe bi ak ku bëgg ak ku pas-pas waaye Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa ba tey mi ngi fi la fa bàyyi woon mi ngi fi ku ci jot. sant yàlla bu baax a baax di.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 waaye lu dul da nga koy gis nga xam ne Pastef rek moo am solo ci euh, liggéey bi nag dafa nekkoon liggéey boo xam ne wax dëgg képp ku fi ñëwoon woon euh, danga xam ne suñ siidu jàmbaar la mën naa ne soo doon wàññi fii ci Sénégal boo neen benn doona ñaar li sëñ Abdou Lahad wax léegi nii loolu mooy lu wér euh, ndax nee na man sëñ Abdou Lahad na ko bay dunde moom.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 sëñ Tuubaa yàlla gërëm foofu lépp teg ci mu yor mu nekk ndabam mu fees dell te soxlu ci dara ñu topp ci yelwaan nag laal bi daan dong mooy lii waaw man xar al baaba wala jawalaj ku taxaw ci buntu fëkk bu yàgga ñu ubbi la buntu yàlla bi nag tëjewut tëjewut kon nag te te te ko fëgg duñ lay yeexe kon nag yàlla bu ñuy yeexe noo ngi taxaw di fëgg di toroxlu di ñaan sëñ Tuubaa